asalaamaaleykum mbokk yi ak xarit yi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan ci Sénégal TV ak Sénéweb nuyu nañu leen yéen ñëpp seen tur ak i tamit seen sant di leen wax ngeen dal jaam ci li gën a fës ci ëttu yéenekaay yi

Idrissa Seck nee na nag ñoom ñett seen diggante mbirum xol la ak i tamit euh, lu dëggu ba tax na nag euh, kenn mënul dem ci ñoom ñett euh, bàyyi moroomam ba tey nag ci mbir moom la ñuy desandi ak yéen ñu ñuy xamal laas moom ñuy wax ne sax Idrissa Seck moom gannaaw nag ñi nga xamante ni nag moo di Eh, njitu sénat di pape diop ak itamit macky sall ñom dañoo demoon ci thiès ngir nak dal def ku jàll ci mbokam bi nga xamantene mo genn aduna di ndey amiño ñu ñi xamal nak nag pape diop yëkëti na fa ay kàddu yu rafet dal di koy wax nak ci kaw ki di idrissa seck neena nak ñom ñaar seen digënté digënté gu yagg la té nak digënté bu eh, dëggu la ci loolu tamit neena na gannaaw nak bañu eh, bokké digënté diggante bokku nañ tamit li nga xamantene nak modi diiné gi macky sall momi tamit andon na nak ak ay euh, xaritam dal di dem nak ci euh, ndial gogou and nak ci melni nak euh, mbay ndjay ak tamit mohammed saleh ak badara cissé ngir nak def dialum gogou ci lolou nak fay melni rek dañu bëgg wane ne li nga xamante nak lañ ci doon wax ci digënté Macky Sall ak Pape Diop ak Idrissa Seck di wax na nak juboo ñu seen biir mel na nak mbir mi ay ndaxé mbay la ndax ñom ñett waxtaan nañu waxtaan yu am solo waxtaan yu dëggo dëggu Idrissa Seck tamit amna lu mu xamal askan wi mu daal di wax né mom mo ne Maître Abdoulaye Wade mu jël kii di doomam Karim Wade teg ko ci booram. Euh, tey nag ci altine bi dossier spécial bi ñu ngi koy def nag ci wàllu tàggat yaram rawatina nag football bi nga xamante ne moo lëmbe Sénégal euh, samedi diggante nag euh, Gambie ak Sénégal nga xamante ni jiit yi nag ñoom faj nañ faj yu métti métti ñi nga xamante ne ñoo di gaynde yi laas moom mi ñuy xamal ne kat ñetti atu yàlla Sénégal du gis sax bal waxatuma laak nag naan da koy téye ndax nag ñetti atu yàlla daal Sénégal du dem fenn du dem ci Coupe d'Afrique waxatuma laak nag now scorpion yi maanaam jiit yi dañoo dóor dóor yu metti ñi nga xamante ne euh, ñoo di euh, waa Sénégal dañoo jàpp ne rek dóor yu metti la ndax nag naam dañoo def maanaam nag euh, ndam demul ndam dikkul waaye Sénégal daf cee toog ak askan wi nag loolu metti leen metti goo xamante ne ñenn ñi xam nañ ci ñenn ñi mer nañ ba génn ci mbedd mi nag daal di rajaxe siège u fédération ba rajaxe tamit li nga xamante ni moo di yenn oto ñu ngi xamal ne nag ñaar fukki nit ak ñeent ci ñoom yoon nag teex na ci ñoom loxo ci mbir moomu nga xamante ne moo di mbirum tàggat yaram askan wi nag ñoom di koy misère misère yoo xamante ne kenn xamul euh, nu mu toll ñi nga xamante ne ñoo di ñenn ci gaynde yi ñoom daal misère uñu ko benn yoon ku ci mel ni Yomosi Camara ca bés ba ci guddi gi la organiser nag benn fête boo xamante ne nee nañ daal fête bu neex a neex la ca nag coach bi ci di El Hadj Diouf moom daagu ndànk dem fële nga xamante ni moo di Nirvana waaye moom tam ba mu fa demee yuuxu yu méttee metti la fa jëlee yemul foofu de nenañ nañ Isiar ak ki nga xamante ni nag moo di Gomis ñoom nag ñu ngi digg diggante woon golden ak ngalam l'observateur la ñuy euh, dikk ak yéen gannaaw nag jiit yi dañoo nag gaañ ñi nga xamante ne ñoo di gaydé yi ñu ñi xamal ne nag ci loolu ki nga xamante ne moo di Tony Silva euh, Fadiga ak Henri Camara ñett ñooñu nag la ñu jàpp ne daal mbir mi metti na leen ndax ñoom ñett ñooñu juguñu nag di tour rongoñ maanaam nag ñoom dañu doon jooy jooy yu métti métti euh, askan wi nag dañu doon tëbbal ay xeer ñi nga xamante ne ñoo di gaydé yi ba nag gaydé yi nee nañ daal dañu doon boros nànk mur yi sapeur pompier yi dar leen lu ko moy nag askan wi dañ leen naroon a gaañ gaañ yu euh, métti métti lamin Ndiaye nekk nag fi nga xamante ne moo di tàggat gaynde euh, jamono ji këram nag dañu fa teg ay takk ngir nag ñu aar kaaraange këram lu ko mooy danañu euh, caxa caxajee këram googu nga xamante ne nag mi ngi fii ci biir Sénégal comme ni ñu caxa caxajee siège u fédération bi ba tey ci mbirum tàggat yaram laas moom mi ñuy xamal ne Sénégal moom depuis samedi mu ngi ci naqar gu métti métti ci li

fële ca Gambie kenn du liggéey maanaam bés boo xamante ne journée chômée et payée maanaam tey dañuy toog lu ñu ko liggéey te bu weer deewee ñu fay leen lépp waralu ko rek lu dul Yaya jabe dafa kontaan ci ay ci wàllu culture lañuy ñëw ak yenn mbokk yi Walf Grand Place moom di ñu xamal ni kat Wasis Diop nekk ndaanaan bu mag a mag nag moom ay at la toog dégguñu ko fii ci biir Sénégal ci loolu kat ajuma bi ñu génn nag ma nga doon def benn concert bu mag ne nañu te nekk concert bu neex li nga xamante ni moo di ex nekk nag institut Léopold Sédar Senghor ñu wax ne daal euh, sénégalais nag dem nañu euh, wuy ji euh, Wasis Diop bu baax a baax. ba tey ci wàllu culture la ñuy desandi ak yéen mbokk yi li nekkoon nag final national élite modèle look deuxième édition ñu defoon ko nag fii ci biir Sénégal maanaam nag xool tànn xale bu jigéen bi nga xamante ne moo gën a taaru bi mën a représenté ji Sénégal fële ca. Chine ci loolu nag ñu ngi xamal ne kii di Aminata Diop nekk étudiante am fukki at ak juróom-ñett moom nag la ñu tànn ngir nag mu mën a dem représenté ji euh, Sénégal ñu ngi xamal ne sax daal. le 23 manam ñax ci fan ak ñett la soxna Diop Chine représenté di dignement bi nga Modi Sénégal té mom nak néna dal dina def katanam ngir sigil Sénégal manam nak euh, mu jël ndam li ci li euh, finale internationale élite modèle look deuxième édition xew-xewu jamono la ñuy dikk ak yéen xew-xew bi nag mu ngi xewee fii ci biir Sénégal Euh, ki nga xamante ne nag moo di waykat bi di Kumba Gawlo Seck euh, moom nag la ñu wax ne dafa yoral lu toll ci benn million ak genn wàll euh, benn menuisier buy wuyoo ci turu Assane Ndiaye nee nañ daal ay bunta ki palanteer la ko defaraloon mu war koo jox nag lu toll nag ci million ak genn wàll nee nañu sax naam am na loo xamante ne nag jotoon na ko koo jox waaye nag li ci des joxagu ko ba léegi kii di Assane Ndiaye nag loolu metti ko ndax nee nañ Kumba Gawlo Seck sax kii di asan Ndiaye dele ba ko joxoon ngir mu mën ko jox ay palanteeram ak i buntam euh, dele ba nag dafa passé joxu ko ko woon ci loolu tam yóbbu woon na ko ca dig ba ñu tëj leen waaye nag génnewaat nañu leen asan Ndiaye moom defu rek lu dul daal di jël ay tamaam ànd ak ay xaritam euh, organiser nag benn sabar ci buntu euh, kër Kumba Gawla Seck rëq fa di tëgg nag naan Kumba Gawla Seck fay ñu suñu xaalis Kumba Gawla Seck fay ñu suñu bor mu mel ni que nag daf ko wàññi toroxal ko nag ci gox bi nga xamante ne Kumba Gawla foofu la dëgg waaye nag am na kenn koo xamante ni moom xam na ku magawalu sekk bu baax nee na daal kii di Assane Ndiaye daal li muy wax dara du ci dëgg Euh, kon mbokk yi nak euh, ñu leen di xamal rek seen rubrique as plus su tey leen ko mëna am ndax nak sama natango bi leen ko doon defal di as bara dafa xawa tawat ñu koy ñaanal nak mu wër ci jamm ak salam mëna ñëwaat fii euh, di leen defal li nga xamantene modi as plus ba tay ci lolu rek ma leen di jaajëfal yeen ñi nga xamantene yeen ñuy ci Sénégal TV ak Sénéweb di leen wax ne rek sant ak ngeureum ñen na leen dig dajje bi suba lay doon ci yeneeni xibaar jeer ngeen jëf jamm ak jamm